Quincaillerie AAD ak Optique Vision Plus Sénégal ñoo leen di may les 5 minutes de Pape Hann. Sucria, le sucre diabétique de dernière génération. Optique Vision Plus Sénégal, la santé de vos yeux, notre préoccupation première. seen boutique Optique Vision Plus Sénégal mi ngi ci seen wet ak solution yi gën ci wàllu lunette lunette yu baax garantie rafet te yomb ci kooru ren gi Optique Vision Plus Sénégal indi na leen suukaru koor bi dàq ci suukaru koor yi ay wàññi yu mag a mag ci njëgu lunette yi ci cadre lunette yi ba ci accessoire de lunette yi ay lunette vision de près vision de loin progressif avec anti-reflet ay percé original avec traitement X-Blue ay verre photogré ay monture de marque sur mesure yu ngeen dul gis fenn fudul fii Rayband Ricoh Mirado Utica wala yeneen showroom bu Optique Vision Plus Sénégal mi ngi ci VDN bi cité Mourtala 2 Optique Vision Plus Sénégal am na léegi ci Kër Mbay fal ci Mbour ak ca Touba Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous matériel yu baax dëgg ci réew mi ku ko bëgg fii nga ko mën a amee quincaillerie Abdou Alima Diop quincaillerie AAD mooy seen partenaire bi wóor ci wàllu peinture peinture yu doy waar yaa ngi nii peinture d'étanchéité liquide bi wala rouleau chapnu peinture signalisation peinture façade anti-rouille ba ci bii ngeen di gis ñu naan ko époxy garage yi wala sous-sol yi léegi kenn defatu ci karo époxy bi leen quincaillerie AAD indil moo ci gën képp ku soxlaati lumière ñëwal fii ci quincaillerie AAD une large gamme de choix lustre yu taaru ngir jàkka yi ak jumaa yi lamp spot lampe de chambre salon ba ci ay lampe détecteur quincaillerie AAD yamul ak kenn ci sanitaire meuble salle de bain accessoire salle de bain jacuzzi hydromassage chauffe o ba ci ay réservoir d'eau surpresseur ak pompe émerge yu garanti yaa ngi nii matériel menuiserie plomberie ba ci appareillage électrique ak ay nouveauté yu doy fer béton ciment lu ngeen ci bëgg ñëw leen fii ñoo ngi leen di xaar ci suñu showroom bu mag bi nekk fii cité Kër Damel am na beneen place bu nekk Parcelles Assainies unité 26. quincaillerie AAD am na ci Tivaouane Peulh cité Apix ILO 4 fa la ñu nekk téléphone 33 835 41 02 33 835 50 56 quincaillerie AAD yéen ñépp la ñu bëgg a satisfaire. Fondée en 2010, L'entreprise sénégalaise AgroSafi, implantée dans la commune de Signa, est composée en majorité de femmes et de jeunes compétents. AgroSafi s'investit dans la transformation et la commercialisation des produits céréaliers, de fruits et légumes, mais aussi de ressources forestières non ligneuses bien de chez nous. AgroSafi s'inscrit dans la dynamique du consommer local, voire africain, à travers une offre de produits alimentaires à haute valeur nutritionnelle sur l'agriculture durable. En alliant des pratiques du terroir aux technologies innovantes, Agrosafi accroît sa production riche et diversifiée avec des gammes de produits connus et appréciés. Safia, Ayuships et Safilac. à AgroSafi, la qualité est notre credo. En quelques années de présence, avec le professionnalisme qu'on lui connaît, AgroSafi s'est positionné comme l'un des leaders dans la transformation des produits agricoles sur le marché national et étranger. À AgroSafi, la qualité a du goût. Avec des produits AgroSafi, mangeons sain pour rester en bonne santé. dafa ragal sukkër ndeysaan jabet bi pend moom nee dafa am trasu jabet ba ñemetu sama chéri nag moom ak bàyyee xel sukkëram dëgg la dund ak feebaru jabet yombul di toppatoo sa régime u jabet boole ko ak di lekk lu am cafka dafa jafe woon lool waaye njaqare jeex na tey ak sucria sucria di suukaru diabète bu ñu saytu ci laboratoire yi gën a mag ci àdduna bi sucria suukar bu naturel jóge ci meññeef yu mel ni xaal ak poire te di naayil yaram sucria du suukar bu lay gaañ moo mën dem ci lépp lu bëgg suukar te cafka bi dafa neex sucria du yéegal benn yoon sa suukar te àndul ak benn loraange ginnaaw fagaru moo gën faju yéen ñi jabetul sax mën ngeen koo jëfandikoo sucria daal mooy noflaayu ñi bàyyee xel seen suukar sucria le sucre diabétique de dernière génération Qu'entendez-vous par cuisiner une multitude d'ingrédients préparés avec soin des fourneaux à un choc de couleurs une explosion de saveurs, une texture délicate et onctueuse, une viande qui crépite sous l'huile chaude, une découpe artistique et racinée, jonglée avec les légumes de saison pour une marinade sous haute tension. Pensez Jadida, à consommer tous les jours. Laissez-vous tenter par le goût unique et authentique de la mayonnaise Jadida. Jadida, la mayonnaise généreuse et racinée. Découvrez le meilleur de la mayonnaise Jadida. mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ñaanal mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew mi yàlla bàyyi leen ñu yàgg fi te wér ñaanal njiitu réew mi ñaanal boroom kër gi président Youssou Ndour ñaanal kilifa yi réew mi biir réew mi ak bitim réew yàlla na ñëpp am jàmm mbokk yi ñaan boroom bi subhanahu wa taala ñaan ko mu defar sunu mbiri àddina ñaan yàlla yit mu defar sunu mbiri alaxira ci darajay soppeem bi Seydina Mouhamed émission baa ñu waxtaane Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp maa ngi wax ak yow la njëkk rasul di ñëw teraanga yi ko yàlla defal moom alayhi salaatu wa salaam waaye ma wax la ni la teraanga yooyu yépp amul ci benn boo xam ni yàlla jël na ko taggee ko rasulullah kon soo may déglu xamal fa ma bëgg a jëm mooy maa ngay jëli ay jikkoom yu tedd ya moom alayhi salaatu wa salaam dama da wax bërki démb nii la nit munul jag te jëlul ay jikkoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi koo xam ni bala ngaa xam ni bëgg koo wóor ñu la biir bàmmeel koo xam ni bala kaa ngaa xam ni bëgg koo wóor taxawaayu bis koo xam ni bala ngaa xam ni bëgg koo wóor nga ne ci ay jafeñ-jafeñ moom alayhi salaatu wa mu di yonent boo xam ni feeg yaa ngi toog ci jotaayam yaa gën a tedd ku yow mu di yonentu boo xam ni ma wax la ni la féeg yaa ngi diglu ay njàngaleem yaa gën a tedd ku yow moom sallallahu alayhi wa sallam féeg yaa ngi koy yëg ci sa xol yaa ëpp sécurité ku dul yow waaye Seydina Muhammad kiimtaan ya mujizaam ya li njëkk muy ñëw feeñ na ndax maama yi daan nañ ko gis boo demee ci maam bu ñuy wax iyaat ak anmaar ak rabia nga xam ni ma ata leen jur seen problème ba ak ak ak mu dar mi nga xam ni moo yoroon secret ga waaw moo a góor gi sama Seydil Hadji waxoon ni mu daril xamra sirrihimi waaw waaw mudar mooma mook iyaat ak Anmaar ak Rabia ñoom ñeent ñëpp maat moo leen jur waaye leeru Seydina Muhammad ci ki ki mu gàlloo woon mu yor ko mooy ma at mu dar war a góor gi wax ni mu daril xamraa sirrihimi mu dar mi mi nguulu xonk la keroog bi maat di miiras mooy seen secret waaye mbokk yi nga xool leer nga ba muy dem ba ci maam bu ñuy wax Abdul Muttalib Abdul Muttalib dafa tëdd gént gis benn garab benn cer baa nga day joor benn car baa nga penku garab gaa nga ca kaw te Abdul Muttalib nag boo ko déggee moo jur Abdullahi mu jur Rasulullahi Abdul Muttalib moom mu bi mu géntee dafa xëy tiit ndax siin na garab ga am nañu ca kàllaambiitu jàppandu ca garab ga am nañu yor jaasi gàddu jaasi pour gor garab ga allahu akbar kon mbokk yi ñi taxaw pour fay l'islam du ñu jeex mukk nga xool ñi ñi taxaw maamam Abdul Muttalib bi muy gént loolu Seydina Muhammad gën ay gul àddina waaye am na ñoo xam ne ña daw pour la nga amu ca garab ga mënuñoo àgg mooy mbokk yi Abdul Muttalib xëy dem laaj ko kii firi gént bàyyi bu saaxu yal na yàlla yokk leeram daan na wax ni bari na ko ay mbiram dox gëm gént tax bari na ko ay mbiram cang yàqu ci àddina mbaa dara doxul xeeb gént tax ndax boo tëddee sa rawxaanay dem am yu mu lay signalé Abdul Mutalib dem laaj ko kii firi gént mu ni ko loo gis mu ni ko lii laa gis sa góor gi ni la ma ko tontu xam naa moom Seydil Hadji Malick daf ni ko in sadoxat ruyaaka fabtasimi la yuxrijanna ilahi min ka man tabiat lahu lxalaiqu min jinnin wa min nasami haaji malik ne ra'a manaman aziman qaiman fazian wa xiila in shadaxat ruyaaka fabtasimi lab waaw laaba bay firi gént daf ni ko yow day abdul mutalib lii nga wax ni moom nga gént muuñal mu ni ko waaw lu may muuñ mu ni ko la yuxrijanna dana génne ilahi sama boroom min ko tukkee ci yow man koo xam ni tabiat dana ko topp loo ñeel jëmm jooju alxalaayiqu mbindeef yëpp daañu ko topp waaw waaw waaw min jinnin wa min nasami dina am luy fàqi koo ci sa ndigg nit ñi daañu ko topp jinne yi daañu ko topp te koo koy rasulullah ki abdul mutalib nag ne pat abdoulaye am 18 ans mu wutal ko soxna mu rasa doom da ngay fexe mu teel am soxna waaye mbokk yi la nga cay dégg mooy Abdul Mutalib la mu wax labbe ba ne ko waaw ñi yor jaasi pour dog garab ga mu ni ko mooy ñi nga xam ni bis bu yàlla yónnee sa sët booba mbaa bis bu ko yàlla joxee teraanga dina am ñu taxaw pour gor ko am na ñoo xam ne du ñu bàyyi mukk waaye benn be euh, alay Pape Cheikh Diallo ma ko waxoon ne ma benn pape ma ne ko am mu ne ma benn yaay moom ma waxoon ne ma pape am na koo xam ne da ngay dëbb dëbb dëbb dëbb waaye du mokk mukk allahu akbar waaye Seydina Muhammad kon la njëkk muy ñëw am na ñu taxaw pour fay la mu bëgg indi waaye ña Abdul Mutalib ne ko gis naa koy daw pour kalambiitu ca garab ga mu ne ko mooy ñi nga xam ne du ñu fekke jamonoom mu ne ko ña ca kalambiitu nag mooy ñi gëm rasulullah ki alañ bi sàndoo ci caméra bi ba suba ak jàmm Quincaillerie d ak Optique Vision Plus Sénégal ñoo leen doon may les 5 minutes de Pape Hann Sucria, le sucre diabétique de dernière génération.